tey dañu daje fii ci sama initiative ndax boobu ba léegi dañu créer commission boo xam ne pour jubale waa Wakaam yi la commission boobu sama collègue assan ba bi nekk sama ginnaaw moo ko jiite mooy yeneen conseil ndax ku ne xam ne ne Wakaam lu bëri tey ñu ngi koy ñàkk ci ñàkk jubboo rek ndax dëkk buñ ne am na ñeent ba juróomi jaraaf ci benn village bu ndaw loolu dafay xaw a kéemaane bu kiy waxee aw fii kiy wax aw fële bu ñuy dajee fii ñuy daje fële loolu dama jàpp ne loolu du lu baax te Wakaam tey devenir na une grande ville au-delà même des sept penc dafa am yeneen quartier yu bees yoo xam ne yu fi nekk la donc il faut que ñu jéem a jubbaale li nga xam ne mooy cosaan li yaatal ko si ñi nga xamante ne ñooy ñi fi ñëw dëkk si dool la ko suñ biir pour que mairie bi li ñuy wax la gestion participative ñu mën ko def bu baax a baax a baax baax donc loolu moo doon wul moo moo indi kii bi c'est très difficile nag ndax euh, kiiroo beex ngaayoo bi ci biir Wakaam dafa dem ba egg dimension boo xam ne bu xaw a sori la waaye nag tàmbali rek dañuy tàmbali ndax ñu ngi négocier boobu ba léegi ñu ngi tàmbali tey nag ñu ko doon lancer officiellement pour wane ne nag ku ñëw dañuy dem ku ñëwul dañuy dem parce que nag ñun dañu war a nekk au-dessus de la mêlée du jaraaf du ndey ji réew du saltige du kenn ku ñu mën a tere def li nga xam ne loolu lañuy def au nom de la collectivité de Ouakam donc commencé nañ incha allah commission yi dafay continuer te dinañ ko gën a yaatal. jaraaf yëpp ku ñu seeti toog waxtaan ak yow nee nga yaa ngi soutenir initiative bi loolu ñoom commission bi ñoo ma gën a xam. koo wax rek loolu la la wax waaye gis nañu ci suuf ay nit yoo xam ne ñu ngi yàq am nañ ay ojo gis nañ ay messages yu ñuy envoyante pour essayer de gâter cette initiative mais qui se détrompe kenn mënul tere li ñuy def bu dul yàlla suñu borom pour que ñu jëm si kaw ndax dama yaakaar ne ku fiy wax rek nga ne na am nga am ndomba tànk boo waxee turu Wakaam nga wax donc yow danga nga war a doon puso waruloo doon koy xàjjale waaye nga ne ndomba tànk yaa ngi am si turu wakaam bu intérêt jotee nga jël intérêt bi léegi bu nit ñi waree daje yow doo ko def parce que c'est dans la division la ñuy gis seen bopp am ñoom ci division bi rek si la ñuy gis seen bopp ñëwuñu pour jéem a def lu tëj nit ñëwuñu pour jéem a toppatoo waxu suuf ñëw dañu ne nañu booloo ñun wakaam yépp problème yépp ñu teg ko sur la table jéem xool nan la ñuy régler problème yi pour dem vers de l'avant je peux donner un seul exemple le stade de football il est le financement il est là commencé nañ travaux yi suñu xiiree suñu aayoo mu ngi bloqué benn terrain moo fi am bu xale yi di fowe terrain Monténari yi et pourtant ça a été morcelé chaque jour ñu jot ay convocation ñiy jënd seeni suuf euh, seeni suuf ñu ngi ko bëgg a tabaxee xale yi nanguñ ñu football si ñun euh, ñun man benn nanguma ñu ñu ñu ñu dindi terrain di football bi donc ça ce sont des problèmes dañu war a toog ñu xool nan la ñu war a def ba rek ces problèmes problème tant d'autres village ku ne xam na ni tey boo duggee ci biir village ñi bokk ndeex baay sax ñu ngi reyante pour un centimètre ñu ngi koy xëccoo ci biir village mu ngi étouffé nan ñu ngi am si ñu restructuration ak régularisation foncière nan la ñu war a def ba état jàppale ñu ci loolu Ouakam mu ngi màgg amuñu benn infrastructure nan la ñu war a def dëkk bi mu ngi salte loo defar ñu yàq ko nan la ñu war a def tey ku ne gis na ne assainissement bi c'était prévu pour 30 à 40 000 habitants tey nous sommes à 150 000 habitants parce que li mu yenu tey antalu ko nan la ñu war a def pour état jàppale ñu si assainissement dëkk bi yokku na nan la ñu war a def et cetera y a tous ces problèmes donc il faut que ñu toog ñu bokk ñu waxtaan ko mais nag di diviser nit yi pour di wax au nom de ces personne di wax ci turu ay nit yoo nga xam ne représenté wu loo leen sax booy xool ndax ñooñu doo leen gis da ngay toog fële rek nga ne am naa ndomba tànk bi am naa benn ndomba tànk kenn gënul valable fii kenn benn ndomba tànk man nag je suis au-dessus de la mêlée ndax ce sont les populations qui m'ont élu dinaa jël sama responsabilité ba mu mat sëkk ku ñëw ñu bàyyi la si yoon bi mais dinañ def suñu kéemtalaay kattan ba administration centrale bi xam ne lii mooy lii wundu Wakaam xam nga dafa am yu bëri yu am yoo xam ne bëggatuñu mu am su ma jëlee benn exemple séddale nañ ay suuf si ay critères villageois la du villageois est-ce que tey bu ñu état joxoon sax si yooyu critère lañ ko war a séddale non non commune quand je gère une commune amul wakaam laa cosaano ah du ma wakaam wakaam laa cosaano on est wakaamois on en fait partie donc yooyu yëpp dañ ko war a régler suñ ko aplanirul léegi bu ñu demee ba ci kanam dañuy am ay difficultés yooyu yëpp dinañ ci discuter muy aéroport bi muy feneen muy feneen ndax dama yaakaar ne fu ñuy séddalee nag ña fa dëkk ñoo gën a yelloo. dañu jàpp ni pour la première fois ci histoire wu Wakaam le maire Samba Bathily Diallo dafa poser un jalon bu am solo mooy conseil municipal bi nga xam te moom moo ko jiitee dafa wootee waxtaan dajale ci coutume bi jaraaf yi ndey réew yi ndey jàmbur yi frais yi dajale ci chef religieux yi ñi nga xamante ni wàllu diine gi ngànk ci Wakaam ak administration centralu mairie Wakaam pour ñu mën a toog waxtaan ci problème mu Wakaam problème mu Wakaam yaatu na bokk na ci li ñuy tuddee recouvrement financier bu Wakaam alalu Wakaam koppari Wakaam mu ngi tàggatee téngee bokk na ci yaatal Wakaam restructuration des population bokk na ci le problème foncier yéen ñëpp xam ngeen ko euh, bokk na ci également xa affaire xale yi les jeunes manqué nañu espace fu ñu footballé te xam ngeen Wakaam ay élite football la am ak élite basket maanaam euh, dans toutes les disciplines sportives de Wakaam Wakaam am na ci ay nit ñoo xamante ni ñu xarañ lañu yu histoire Sénégal jàpp dans le domaine sport. ak yeneen question ak yeneen question ñu bëgg nag pencoo maanaam dajale toutes les forces vives de Ouakam le milieu traditionnel le milieu coutumier l'administration la jeunesse les oulémas ñun ñëpp ñu daje def genre plateforme boo xamante ni dañ fas yéene waxtaani mbir Ouakam dara bañ a sedd ñu waxtaane ko ci teyum xel waxtaane ko ci jàmm ak salaam ndax magu Ouakam dañu doon wax ni catu Ouakam daal mooy bañ a déggoo mais saa yu déggoo nekk benn lu ñu soxla ñu am ko ndax di ñu am ndam mel na ni bisu tey bi nag moom lay feddilaat moom lay yeesalaat loolu moo tax ñu doon dox dajale jaraaf yëpp dem nañ si ñoom euh, ndey ji réew yi seet nañ leen ndey jaabur seet nañ leen la jeunes xaalis seet nañ leen imam yi nga xamante ñoo fi nekk tam ngànk diine bi seet nañ leen ñoo ñëpp nag ñu war a taxawet taxawaayu was maanaam taxawaay ñetti tànk ndax cin moom yéen jigéen ñi xam ngeen luy was cin ñetti tànk la bu benn bi manqué rek du sotti loolu nag mooy suñu yéene yàlla nag mooy mottali waaye suñu wareef mooy jéem suñu wareef mooy commencé suñu wareef mooy jël décision ak initiative ci loolu la ñu nekk tey pour que vraiment wakaam gépp doomi wakaam ñëpp dajaloo waxtaanee suñu biir ñu def lu ñu tuddee penco man ko tuddee sax états généraux de wakaam pour qu'enfin ñu trouver la meilleure formule la solution bi nga xamante ni moom mooy jubali dëkk bi ñëpp am jàmm kenn bañ xëcc jëm na li kenn bañ xëcc jëme na li loolu jafe na mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron maanaam euh, loo gis rek euh, ndogal goo gis rek tànk nga ca loolu yi daal mooy li nga xamante ni moo doon suñu yéene ak dinañu mébét ba tey jën nag alhamdulilah rabbil alamin ñu woote daje fii pour mën a waxtaan mbir moomu li ñu tënk bi administration centrale la ñu ko dëggal et il est évident que euh, le président de la république euh, son excellence Macky sal mooy président de la république du Sénégal donc bu ñu paree fii ba pare li ñu tënk euh, pare guñu nag ndax dañuy def ay waxtaani waxtaani waxtaan bu ñu paree waxtaani waxtaan yu bëri ba nga xamante nag mbir mi ñor na ñu def nag suñu li nga xamante ni mooy doon suñu dossier ñu def ci ay ay éléments yu am solo ñu étayer ko ba gis dossier bi alors moom ñu xeeb. ndax tam ay intellectuel fi ne ay nit ñu am xam-xam fi nekk bëgguñu sorko sorko mbir mi def loo xamante ni manque manquement am na ci dañu bëgg liggéey ko travailler ko ba mu set ba mu sell ba mu yiw ba képp koo xamante ni présente nañ ko nga xam ne ay la yéen Wakaam enfin taxaw na Wakaam enfin taxaw na pour jël responsabilité donc bu boobaa incha allah di ko jëbal l' autorité suprême de la nation euh, en l'occurrence le président de la république